Chers collègues députés, chers ministres du gouvernement qui siègent ici parmi nous, je vous salue. Je de ce temps de parole pour rendre on un vibrant hommage à notre défunt secrétaire général Madame Joséphine Diallo. Euh, Madame la Présidente tey de suma ya nga bi ma la gisee dama daw rek song la ni la yaay ñëw na c'est pas facile ce ne sont pas de mes habitudes chers 80 députés qui ne méritent pas d'être dans cette salle et que le Sénégal a donné pouvoir je vous salue gis nga neexum ngoontu madame la présidente xam fi ngay fanaanee ko gën gis nga fii ku fi yeyoowul rek doo fi dugg parce que ñii ay gor lañ yoo xamante ne tay lawuñu seen département dem korosé wu ci liste nationale pour ñëw assemblée nationale madame la ministre ñi ñoo ko mérité dagg du neex souffrez en silence soufre souffrez en silence madame la petite fille souffre en silence souffre en silence souffre en silence souffre en silence ma ne euh, cher député bu ñu naxante xam nga lu tax du ñu naxante te bu leen déglu lu tax du ngeen déglu ñii ngeen di déglu yàlla lii leen fi tege woon jeeg nañ du ne ba tegaat leen fi parce que loolu mooy seen liggéey loolu lañ xam yuuxu tàmm saaga yàlla loolu la leen bindee ma bëgg nag ni ngeen def jii ba 18 ñuy kuskusi te mënuñoo fexe ba yeggale lawoon wonni na maanaam lawoon moo wonni li ngeen daan def toog naa fii ci assemblée bi ñu ne ñu ne ah, ministre de des finances du ñëwul du ñu voté la loi dañ ma dañoo nekk di nax di ba voté la loi parce que jàpp nañ ne ministre bi bu fi ñëwul ñun duñ ko mën a réglé tey nag dañoo toog. di leen xool di leen surveiller yoolu wantaay diw comme le lait sur le feu du ngeen def dara du ngeen mën dara yuuxu rek ngeen di mën li ci des zéro la madame la présidente ce gouvernement ici présent doit démissionner avant qu'on continue les débats madame la présidente ñun duñu ay novice ci mbir mi yàlla may nañu xoolal xam nga lu tax ñu leen koy wax ku la mujje ci kër moo fay sa boos loolu moom dafa leer ñun nag tey jii la suñu jeex tey waxuñu ay 10 ans ginnaaw lañ fi nekkoon de tey la suñu mandat jeex on connaît vos règles on vous connaît on connaît votre malhonnêteté on vous connaît vous des députés des vendus mais tey du jàll ça ne passera pas ça ça ne passera fii ba rek fii ba fii ba nu ngeen ko bëggee rek noonu lañ koy defee madame la présidente l'histoire vous rappelle l'histoire vous rappelle monsieur le secrétaire général je vous salue madame la présidente l'histoire vous rappelle arrêtez ce débat dem waxtaani ci biti trouver une solution pour que ça continue parce que ça là ça ne prospérera pas dañuy continuer rek ba suba mais yéen ministre yi toog fii bu dee jaay doole la du ngeen ko fi voté bu dee góorgóorlu la du ngeen ko moom duñ ko fi voté rek wasalaam madame la présidente presse baa ngeen di nuyu.